الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي رحمة وكاشف الأمة وشفيع الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة بوكي جولي ديو تردي نكتي غوخي فسنتي كوي yu fasantikoo yi ci réew fu ngeen mun di nekk maa ngi leen di boolee te juróomi baat yu ñu yàlla boolee bu gën a tedd gën a sell gën a sakkan bay walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta bay walis ko ñu tibbeeku ko suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. Euh, di jël nuyoo bi di ko gunge laat jullit ñi fu ñu mun di nekk ci àdduna bi ñu ngi ci fin koor gi. Mm-hmm. tabaarakallaahu ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi yonent bi moo ñu doxaloon fukki fan yu njëkk ya yërmande fukki fan yu digg bi njëggal fukki fan yu mujj yi libéré goreel képp ku ko taxawee ci safara ba nga jot sa laissez-passer dem aljana ba ne woon awaluhu rahma awsatuhu maghfira axiruhu itqun minan naar ñett yooyu yëpp yonent bi dalee ci koor gi yàlla nañu ko yàlla boole defal daana wax tamit ne ñett de jël nañoo yërëb ñett daal torox nañ hmm. kiñ tudd sama tur ci kanamam mu dégg ko te waxu julliwut ci man hmm. ne sallallahu alayhi wa hmm. ak koo xam ne dafa dund ak ndeyam ak baayam wala mu dund cee kenn ba xëy jébbal leen borom bi te gërëmuñ ko ngërëmandiku ko war a mën yóbbu aljana mu ne kooka torox na waaye ku ñetteel kenn mu ne mooy ki weeru koor ñëw ñu ne tey la benn tey la ñaar ba weeru koor yu jeex te jéggaluñ ko ay bàkkaaram Hmm. kooku tamit torox na moo tax kon weeru koor weeru set la fu ñu war a setee nag kenn warta sàggan ba fay tilimee hmm, hmm, ndax fi nga war a setee boo fa xasee tilimee lu lay mën a setale te dootul amati ni yàlla di fulee payoor yi ni ma ko waxee ci émission bi passé noonu tamit la yàllay fulee bàkkaar yi bépp bàkkaar bu ci nit def moo xam wax moo xam jëf moo xam pas-pas bàkkaar boobu yàlla dana ko multiplier ful ko lu baree bari ci li ko sopp ndax bàkkaar desul ko ful lu dul mm. borom tàbbal ko ci waxtu woo xam ne yàlla daf koo xormaal wala mm. jamono joo xam ne yàlla da koo xormaal wala barab boo xam ne yàlla da koo xormaal mm. wala nga jëmale ko jëmm joo xam ne yàlla da koo ñetti wala ñeenti fu mën a soqeekoo bàkkaar soqeekoo ci rek booba bàkkaar dañ koy ful te yàlla mu bëri yërmande mi bu demee balay fulal say say mbon mbon mënoo xam ne muy tollooti loolu mën naa gaaw nit ki safara moo tax kon nañuy moytandiku lépp luy bijji bàkkaar ci wax di bijji bàkkaar ci jëf di bijji bàkkaar tamit ci pas-pas ñi koy def ci weeru koor wi mm-hmm. weeru koor wi tamit tabaarakallaahu examen la mm-hmm. salle de examen rek la mm-hmm. lii wane ne nag at mi nañ ci weeru kor yi mooy weeru kor yi wan ñu gannaaw lañ doon def ci lu baax lépp ñi ñi yokk ko te sax ca mm. lépp luñ doon def ci lu bon tamit ñi góorgóorlu ba bàyyi ko waaye ñu ne weeru koor wi jeex na bañ cay dugg dañoo ajoon concert yi mm-hmm. jàkka yi fees mm-hmm. dañoo ajoon tamit fecceekaay yi jàkka yi fees ñi doon jaay sàngara bàyyi nañ ko dem ba weeru koor wi jeex rek kenn ku ci nekk mel ni ku ñu yeewoon dañ laa yewi kuñ tëjoon tijji la kuñ tënkoon tinki la nga booyelaat sa bakkan mm-hmm. ci mbon booyelaak sa bakkan ci saay-saay boole booyelaak sa bakkan ci ak caay-caay booyelaak sa bakkan ci ay caaxaan ah yow de sa xel dal na <laughs> yow de xamoo ndax weeru koor wi di ñëw dana la fekkaatam déet te loolu tamit li muy tekki boo amee lu muy tekki mooy ñàkk nangu koor gi nga génne mm-hmm. jaamu yàlla liy firndeel nangu jaamu yàlla ga mooy boo génnee ci jaamu yàlla ga rek jaamu yàlla ga soppi la mm. jëlee la ci mbon yóbbu la ci baax jëlee la ci texeat yóbbu la ci texe tabaarakallaahu euh, néewal lu luñ waratoon a néewal hmm. jëm ci lu baax jëlee la ci ak ñàkk dal yóbbu ci dal jëlee la ci ñàkk yëg yàlla yóbbu la ci yëg yàlla hmm. jëlee la ci ñàkkoon a dundu yàlla jëm ci dund yàlla ba nga yëg loolu ci sa xol loolu mooy tekki ne yow sa koor gi ak sa jaamu yàlla gi nga génnoon yàlla nangu na ko moo tax yàlla sax dafa ne dama leen di excemer rek li tax ma leen di worloo pour bëgg ngeen am diplôme bu ñu tuddee taqwa mm. te ku ko xam muy ragal yàlla rek am nga sa laissez-passer ci aljaan mm. moo tax ne kutiba alaykum siyaamu mm. ñu ne kama kutiba alladina min qablikum loo ko jublu mu ne laallakum tattaquna te taqwa nag mooy lépp taqwa mooy hubbi bunti xam-xam yi wattaqullah wa yuallimukumullah mm-hmm. taqwa mooy hubbi bunti xam-xamu yëg yi in tattaqullah yaj'al lakum furqaanan taqwa mooy joxe sax wërsëg wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu la yahtasib taqwa sax mooy ci la yàlla di joxe wilaaya wa ma kaanu awliyaahu in awliyaahu ilal muttaqun mm-hmm. taqwa sax maanaam mooy ci la yàlla di joxe mujj gu rafet wala aqibatu lil muttaqin mm-hmm. taqwa tamit tamit mooy tax a mucc ëllëg ci lëndëm ak bàmmeel su mënu nat ji la dina taxaw mm-hmm. demee taqwa tamit mooy tax nit ki nekk ci ëllëg mu dem aljana taqwa nag du dara lu dul li la yàlla tere nga ba ko li la yàlla digal tamit nga nekk ca tee tabax li la yàlla diggal ak teeta def li la yàlla tere lii rek mooy taqwa kon nag loolu moom lañ doon examen ku ci génne yàlla may la nga am diplôme booba sa dëkk nit ñi dana neex sa dëkk nit ñi tamit dana rafet sa dëkki nag yàlla tamit da nga ko bàyyi xel ci lu baax a baax mm-hmm. sant gërëm bu baax mm-hmm. tabaarakallaahu ndokkeel mm-hmm. li nga wax sànq ci nguur bu bees gi nga xam ne yàlla jox na ko senegal Euh, yëkkati benn président bu bees boo xam ne yaakaar yi jëm nañ ci moom mhm. mën naa wax ne sax moom muy jomaay mhm. président mën naa wax ne moom sax tekkiwu na moom lañ fal waaye nit ñi yaakaar lañ fal mhm. carte gi doon gars yi sànni yëpp tey ba mu am cinquante quatre euh, pour cent yu teg loolu lépp yaakaar dong la nit ñi fal moo tax ñoom am nañ yaakaar goo xam ne gu rëy rëy rëy ndax lu toll ni dix huit millions mhm. buñ la yaakaaree dootoo mën a nelawati nelaw yu dal mhm. dootoo mën a lekkati lekk bu neex mhm. dootoo mën a waxati wax joo xam ne ndeysaanam yaa ngi ciy yëg sax sa bopp su boobaa nag kon yaakaar googu tax Sénégal yi jël seen carte yi xeeñ ko ñi fi nekkoon jox leen ko ñi doon jonganteeg ñoom tamit mat ay dix neuf dix neuf personnes ñi xeeñ ko ñoo ñëpp yëkkati la ci ëpp jox ko ko yaakaar jooju yal na ko yàlla dëggal yal na yàlla dëggal yaakaar joo xam ne ndaw yi ñàkkoon liggéey yëpp danañ am liggéey yal na yàlla dundal yaakaar joo xam ne ñi feebar ñëpp danañ mën a faju yal na yàlla dëggal yaakaar yi nga xam ne takkoon seen bagage sax dem Amérique ñi dem ci yeneen i réew ñëpp danañ takkaat seen bagage yi ñëw fii ci Sénégal ñi daan nekk di sonn ci tool yi duñ ci mën a jëlee dara mhm. mbay mi suqaliku comme ni mu ko waxee xam ne mooy première priorité boo xam ne moom lay ak tamit taxaw ci dund gi ni mu ko waxee mhm. ba nga xam ne tey lu nit néew néew doole danga nga mën a dund ñu mhm. kenn kun daal yëg ne dëgg-dëgg état mi ngi la accompagner ci sa yëngatu mi ngi lay accompagner ci sa dal nga yëg ko ci sa jàng yëg ko ci sa ci sa santé yëg ko ci sa sécurité waaye yëg ko tamit ci sa liggéey loolu ndax Sénégal nag neexul ba neexul mais ndaw yu am joma fi nekk mm-hmm. booy dugg ci autoroute bi di gis xale yi jaay ay ndarkoso mm-hmm. ñii di jaay ay musuwaar ah, ngay yëg ne tey li ñu yore ci seen marchandise yëpp boo ko doon évaluer mutul dix mille francs mm-hmm. te ci la yore yaayam ñii ci lañ yore seen baay ñii ci la ñuy fay luyaas ah, ci la ñuy añ ci la ñuy reer ah. ci la ñuy ndékki ñooña dëgg-dëgg bu ñu amee njiit lu baax tabaarakallaahu lu am njariñ lu am yërmande bu leen poussé danañu gaaw a tàkk xale yu am jom fi da nga leen a yërëm sax boole boo leen gisee kon daal wax dëgg yàlla jomaay mi yaakaar gi yàlla def tey ci Sénégal yi mhm. tabaarakallaahu mu président Ousmane Sonko mhm. ak mbooleem ñu ñu ko bokkal mhm. yaakaar juju daal yal na yàlla dëggal ko na leen ñëpp tamit ñaanal na leen ñëpp ñaanal na leen ñëpp ñaanal ndax yaakaar yi vraiment rëy na ci ñoom te yaakaar yi tamit jublu na tamit jëm ci ñoom kon na leen ñëpp ñaanal te ñëpp tamit nañ leen jàppale jàppale gi mooy fenn foo nekk rek jàppal ne maa fay président bi mm-hmm. yow mi borom kër jàppal ne yaay sa président waa kër mm-hmm. yi ñi ci quartier bi tamit yëgee ko noona kenn ku ñu fa nga nekk rek nga defar ko mm-hmm. kenn ku ci nekk bi mu nekk ñi nekk ci dëkk nekk bu ñu ko defaree rek réew mi yëpp dox waaye buñ kenn ku ci nekk li nga man rek def ko la nga man rek def ko lépp loo xam tamit yàlla man la nga man koo dimbalee sa borom tamit defal ko ko bu loolu yaatoo rek dañuy toog rek mujj gis maanaam tabaarakallaahu réew mi lool mm, mm, mm. te gis nga président bu bu bu maandu président bu maandu jiiteem réew loolu naataange la gis nga Omar ibn Abdul biñ koy fal muy jiite jullit ñi booba nit ñi dañoo ñàkk ñii di yalwaan maanaam ñi yalwaan ñoo ëpp ñuy saraxe mm-hmm. waaye gis nga fanweeri weer yu teg rek la fa teg ba muy tegat réew ma dafa mujj naat ba ku yëkkati asaka sax di ko jox doo am koo ko jox ku yëkkati sarax di ko sàkk doo am koo ko kon te moom bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy dafa njëkk a takk biiram xeeñ boppam teraanga yu bari xeeñ ko ay soxnaam ba ne ko sa takkaay yi sax dañ koy jaay dugal ko ci bitsi bi loolu la njëkkee waaye dafa demoon ca maandoom googa sax dafa dem ba animaux yi dañoo mujj maandu maanaam demoon na ba nga xam ne diirab lim fi ne maanaam muus dàqewul janax diirab lim fi ne tabaarakallaahu golo xaj dàqewul golo gaynde tamit dàqewul yeneen rab ya till mooy di muy teg ko ndeke ab président bu maandoo même day dem ba animaux yi dañuy mujj maandoo ca ca ca ca maandoom ga moo tax kon na yaakaar nañ tabaarakallaahu ci moom loola lépp ndax ci jikkoom ak comportement am ak ay waxam te nit ku ne ci waxam rek nga ko mën a jàppee ak tamit ci ci ci doxalinam uhuh. ko moo tax kon foofu Omar ibn Abdul Aziz yóbbu Eh, mm-hmm. jullit ñi mm-hmm. ñoom moom ñi ngi koy yaakaar mm-hmm. yaakaar gu dëggu pour mu yóbbu fa Sénégal yi am nañ ci yaakaar bu baax a baax yaakaar ñu nag kenn mënu koo dëggal ku dul yàlla bu ñun ñëpp nañ nañ nañ sax rek ñaan ko yàlla su boo ko defee waa nag nit lu ko jafe rek ñaan na ko ñaan boromam bu ko ñaanee boromam rek boromam moo koy joxe te ku sa borom jox kenn mënu laa xeñ ku sa borom xeñ kenn mënu laa jox moo tax kon première ngi ci réew mooy buur bu maandu buur bu xasee maandu rek yàlla may ko mu jiiteem réew rek réew moom ak moom beekoor dëddu na leen naataange dëgmal na leen loolu mooy mooy mooy li mos a xew ci histoire ul islam yépp mhm. boo ko ci jàngee loolu rek nga cay fekk mhm. waaye buur bu maanduwut saa yu jiitoo am réew réew mooma naataange wan na len gannaaw hmm. beekoor timit gana si len bo xamne du tuxu mukk fek lola nga fa hmm. Hmm. tax kon nak yaakar yaakar bu bes judd ta yaakar yaakaar dafa reuy gis nga aduna li ngay gis ni liko ko yaatu ak liko taxa neex ba ngay mën di dundu di am ki du dara lu yaakar rek waye ku sa yaakar jeex ci sa aduna rek sa sa sa sa sa àdduna tukki na dañuy mëna wax dañuy wax ne ma ad yaqal umra lawla fushatul amal ne dundu mo xat bu nak ya ya tok yaakar kon dundu dafa xat waye liko taxa yaatu moy yaakar parce que yaakar tax dom yaaji diko di ak coono ba muy dund mu judd mu koy nampal mu koy giix mu koy muy joy mu di nax yaq ay nelawam yaakar ni ki dana mos tekki ba coono bi ma nek mu ci tax timi nit ki di jembal garab jël garab di jembat diko di yaakar ci ker yakar ci ëllëg timin meññant yep motax sa kam xam-xam yi arab yi wax dañuy wax ni bu taxutoon nag dof yi rek àdduna bi rab mm-hmm. ndax liggéeyi risque yëpp dof yee koy def te liggéeyu risque yooyu bu ko dof yi defutoon àdduna bi day yàqu mm-hmm. xam nga tey yenn liggéey nga xam ne dafa laaj nga takk sa ndigg yéeg monte yéeg fu kawe mm-hmm. ni koy suñ mbokk defee ci pot lamp yi ak tey ci courant bi danse yi ca nekk ak liggéey boo xam ne dafa laaj xuus ci biir géej gi ak liggéey yi nga xam ne dafa laaj nga dugg ci biir fosse bi ñu ngacc ko kooka duwul ne ñëpp koy def ñi xam mm. xel ñu bari duñ ko nangoo def mm. waaye ñi ñàkk pexe yàlla féetale leen foofa rek mm. ñoo koy nangoo def te ñoo ñettim buñ ko defutoon àdduna bi yàqu mm-hmm. du mënta ñàkk mm-hmm. Mm-hmm. moo tax kon ñi jàpp ne ñoo amul xel ba tax ñi leen di classé ci liggéey ya gën a suufe ñoo fi baxi ndax yooyu buñ ko bàyyi woon rek buñ bàyyi woon tey balit mi tey ndakaaru weer euh, tuuri wuñ mbalit yi ñëpp dañ noy ah, xet gu bon feebar ñëpp gaaw dee dem ca bàmmeele far benn yoon buñ fi bàyyi woon tey euh, place yi amul canalisation yi tey ñi bàyyi fosse yi gàccuñu ko fu nit ñi jëm tey bu amutoon tey ay maçon yu jël takk seen digg jël ay kii ta tabax kër yoo xam ne dana dem R plus 4 mm-hmm. nga takk seen digg pour yéeg foofa waaye yooyu yëpp tey buñ ko bàyyi woon fu nit ñi dëkk mm-hmm. ndax tey suuf si ni toll ni nii mënta yoon dañu mujj tabax mu jëm kaw ak tey dansé bi nekk ci wàllu mbay mm-hmm. ca matériel yooyu ñii di ci ñàkk seen tànk ñi ci tànk seen loxo ak yeneen machines yi ñi cay li lii place yooyu yëpp tey ñiñ jàpp ne amuñu xel ñoo ci dimbale tey ba ñu am xel tey di ca jariñ mm-hmm. moo tax kon àdduna lépp yaakaar la yaakaar moom ku ko xas jeexle boo xee booy tàgge sax mm-hmm. àllaaxiraa gi sax ngay tapp yàlla nii yëpp yaakaar rek la loo yaakaar pour ëllëg mu yërëm la ëllëg mu dugal laxal jàmm mais tey li ngay def nii di ko ak a néew bu ko bu ko yaakaar gunge wutoon mm-hmm. su boobaa maanaam du euh, du dootu yëgat dara moo tax yonentu dafay wax ne ab julit buy dund dafa war a boole ñaar baynal xawfi wa raja mm. léeg-léeg ngay ragal ragal ba foo ne bu kenn dem safara yow lay doon léeg nga yaakaar yaakaar yàlla yërmandeem ji yaatu ji ba yaakaar ne bu kenn dem aljaana yow lay doon waaye mu ne boo demee ba tollu ci sukkuraat war a gane gi sa borom sànnil fële ragal nga dese yaakaar mm-hmm. ne lu may bon bon tey ma dajeeg buur bu baax bi mm. li may bëri bëri bàkkaar tey ma dajeeg ko mën a jéggale ki mm-hmm. li may mën a mën a tooñ tey ma jéggal tey ma dajeeg borom borom yërmande ji yaakaar jooje boo ko yóbbuwalee ci sa borom rek na ko fekkee noonu na nga ko yaakaaree woon noonu nga koy fekkee ndax yaa yonentu yàlla wax ci xadisul xussi ana inda zanni abdi comme mhm. man maa ngi sama njortoob jaam bi sama jaam bi na njortu yiw rek nu mu mhm. njort rek maanaam ma fekk ko ja mhm. kon nag sénégalais yi tabarakallahu am nañ yaakaar ju rëy rëy rëy ci régime bu bees bi yaakaar ci wàllu sécurité yaakaar leen ci wàllu santé tabarakallahu yaakaar leen ci wàllu social yaakaar len ci wàllu dund gi yaakaar leen yaakaar leen ci wàllu mbay mi yaakaar leen ci xëyu ndaw yi yaakaar leen tamit ñi fi takkoon seeni bagage di dem ca réew ma ñu bëri tey dee ci biir géej gi yaakaar ne daal yaakaar daal jàpp nañ ne juddu xaat mm-hmm. yaakaar jooju nag juddu yàlla na ko yàlla teete yàlla na ko yàlla suqatal yàlla na ko yàlla arrosé ba mu nekk garab boo xam ne sénégalais yëpp waaye waxuma sénégalais yi sax waaye sous bi sax dañu mujj ñëw fii mm-hmm. di di mm-hmm. def ci moodu moodu kon nag yàlla nañu ko yàlla defal ci barkeb Seydina Muhammad mun tamit yàlla jàppale leen dëgëral leen sàmm leen dolli leen te dooleel leen barakati sayyiduna muhammad sallallahu wa sallam yàlla bu yaakaar yàq yàlla bu yaakaar tas lépp luñ ci seen lu ko raw yàlla nañ ko ci fekk ci barkeel sayyiduna muhammad yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def waaw romb gum yépp daal fi ñu ci yàlla jaarale xel daal na li des nag nañ déglu yàlla rek te bañ a yàkkamti yaakaar ju rëy projet bi daal niñ ko waxee lancé ko fu nekk git ko ci internet bi ku ne am ko projet boobu daal buñ ko doxalee rek mmh. tabaarakallaahu ñëpp danañ ci gis seen bopp mmh, mmh. te loolu tamit am nañ am nañ ci ñoom ci am nañ ci yaakaar bi bi dala dala xel te fi yàlla jaarale ba mu xeg si fii waaw loolu rek dal na xel ndax dëgg yàlla koo xam ne yaa nga umee ca kaso ga ah war a korete ja ca pale ba loolu ndimbale yàlla rek ko man ah, amul lenn amul kenn ko man fi ñu jaar tamit ba xeg si amul tuumaalu ma tuumaalu ma ci kenn mm-hmm. ku dul ndimbalal yàlla ak mm-hmm. loxol yàlla bu yaatu ba ak ndimbalam bu yaatu mm-hmm. yàlla moo mën a ba xeg si fii ragal naa ne li ci kanam mooy gën a yomb li nekk ci li nga xam ne war nañ ko gannaaw